ba pare def un bon un excellent choix un meilleur choix waaye laaj ma lu tax mu doon excellent meilleur yow it. bul ma xor rek ayca tojal yax bi rek pàcceer. on est tout ouïe. tojal yax bi rek waaye tekk jële déglu. jël ñaar ñu xam ni. Ah. kenn di ci yàq la am. barke Rasulullah. entertainment tëgg ko. ñu foog ne fan la jëm mu ni damay jëlaat lépp ñun ko foo ko jëmee delloo ko groupe Média. Mhm. groupe bi fësal yi fi mag ñi. kon bu ñu demee tey ba lii am. ñu ni mm. le 20 février la. vous avez fait un excellent choix le meilleur. des choix yéen a ko def. mais xam nga xam nga pàcceer li ci neex. mooy euh, Mao dafa jël lépp delloo ko groupe Futur Média. Mm-hmm. teres wax ko léegi groupe Futur Média jëlaat lépp delloowaat ko askan miroir du Sénégal la ñu wax. Mhm. je dis sax miroir du Sénégal d'Afrique et d'ailleurs. non non non du du miroir du Sénégal yaa ko wax. ayca kon mi ngi noonu mu nekk lu nga xam ne euh, tey olof dafay faral di wax ne ku fàtte la la faloon boo moytul nga fal. nga mhm. fol leen. seen fàq ku jëlee parce que tey fu groupe Futur Média egg public bi moo ko fa eggal euh, askan bi ñoo ko fa eggal kon bu ñu jëlaatee bés bi ni amul jënd code amul pay-per-view. na nga daan jàppe sa télé suba ngoon guddeeg bëccëg di ko seetaan noonu nga koy jàppe seetaan ko dañu delluwaat ci li nga xam ne moo dooleeloon làmb eh, Malick eh, Malick yaa wax léegi ni mooy seetu réew mi mooy seetu àddina bi mhm. seetu nga war cee gis sa bopp ci sot sa bopp ana seetu ah. bu ñu defoon leneen kon wàcc yoon wi ñoo ngi ci yoon kon ñu ngi ci yoon bi macha allah donc le combat sera retransmis en direct et en les sénégalais de la diaspora xam naa fa ngeen nekk kontaan ngeen parce que yéen euh, fii rek ngeen di seetaan. waaw moo seen kër. dañ faa damm dañ faa damm dañ faa damm seen bouton. tubarkal toog di ñu seetaan. kon yaakaar naa ni macha allah combat bu nga xam ne dafay delloowaat làmb ci originalité am delloowaat làmb ca la ko dooleeloon ngay dox ci mbedd mi gis defarkatu tele ba. gaa ñi yëpp ñi naroon a tardé xam ne bu ñu naree egg seen kër du ñu fekkee combat bi. ñu kal ko taxaw groupe kal nga romb boutique ba gis gaa yi dajaloo nga ni ñu waa lu fi xew ñu ne la làmb la ñuy seet. kal loolu la ñuy defaat te du tere stade ba nag day fees. kon kon kon kala jeexoon ci réew mi. voilà kala jeex entertainment delloo si naka. delloo si naka. léegi euh, xew-xew bu ni mel nag bu ñu ko tuddee Futurs Médias itam danañ ci séntu ñu indi ci seen i partenaires. Hmm. indi ci ñu ñuy liggéeyandoo ci koom ndax itam soxla na sponsor soxla na ku ko gunge soxla na koo ko dooleel loolu nag su suñu koy wax ba Ibrahima Dieng toog fii foog naa ni des koo bàyyi rek mu wax lu nag naka ngeen fas yéene gunge waa Sénégal entertainment ci wàllu bu ne mel. waaw mais xam nga Malick dafa am lu mu wax léegi am lu mu fàtte tuuti. Mmh. parce que waa Sénégal entertainment groupe bi ñu jëlee lépp delloo ko Futur Média groupe Futur Média delloo ko public bi. mais delloo ko public bi kese daf ko delloo public bi delloo ko ay partenaire am mhm. parce que nag bi mu sosoo ba léegi dafa am ñoo xamante ni ñoom la ñuy àndal qui nu font confiance comme on dit en français mhm. euh, dañuy jël une très grande partie de toute le stratégie média teg ko si suñu ay support di si am satisfaction lii waa Sénégal Entertainment Group def daf ñuy permettre sax ñun ñu mën ñu ànd ak ñoom. Mhm. mën leen si delloo njukkal. Mhm. parce que ñoo xamante ni depuis presque vingt ans ñu ngi ñuy gunge di ànd ak ñun euh, toute leur communication ñu koy def chez nous euh, di si am une certaine satisfaction bu ñu ñëwee waa Sénégal Entertainment Group dafal ñu teranga bi. Mhm. yoon mooy ñu ànd ak ñoom si bés bi. à travers tous nos supports ce qui fait aujourd'hui euh, sur la stratégie de communication en allant vers le combat le jour J. Mhm. l'après combat si loolu yëpp tënk nañ si. Euh, une bonne partie boo xamante ni ça va permettre à tous nos partenaires ñi bi ñu dooree ba léegi mhm. de pouvoir avoir une visibilité comme on l'a fait sur beaucoup d'événements yoo xamante ni euh, suñu bos la ak yeneen ak yeneen ak yeneen mhm. vraiment c'est pour le ànd seek ñoom encore une fois de plus remercier occasion bii nga xamante ni jox nañ ñu ko tey pour ñu mën a ànd ak ñoom comme on dit le public au public euh, ñi nga xamante ni ñoom comme si slogan bi nous devons notre leadership. Mm -hmm. mais ça c'est pour le public mais même suñu partenaires yi quand même nous devons notre leadership. Mm -hmm. donc ñooñu euh, incha allah le 20 dañ si nar a ànd ak ñoom à partir de, de demain. allah euh, à travers tous nos supports sur toute la stratégie de communication. ils auront une grande visibilité par rapport à tout ça. et puis ñu ànd ak ñoom vraiment euh, magnifier faire la fête euh, par rapport à à cet événement là. kon daal képp koo xam ne nga am looy jaay te bëgg mu siiw ñëwal seet si waa groupe Futurs Médias ñu lëkkaloo ak waa Sénégal Entertainment Group ñi fi ne ñoom ñu ngi fi jógewuñu fi ñi bëgg ñëw itam bu ñu bu ñu ñëwee dina ngeen xajal ndax ñëpp xaj nañ fi ndax séntu asamaan jarul buuxante. Mhm. li waral nag guddi gi mooy face à face rëg-rëg ak guy gi. waaw ana ñu ñaari mbër yi <laughs> rëg-rëg vingt et trente fii la ko fekk mu toog ànd waa këram. jàpp kuulam jàpp finance am di xaar adversaire am guy gi waree géejewaay jël VDN bi daw ba yegsi ci local Futurs Médias yegsi nañu balaa nag ñu gën a sori. dañ leen di boole ñoom ñaar ñu duggeendoo ndax ku ci nekk sa waa kër jàppal na la place tàmm nañ la fi ngay toog ñu ànd ak waa régie indi leen muy ñaari mbër yi di rëg-rëg ak guy gi ñu dugg ci jàmm ku ci nekk toog sa place ñu soogam nag di continuer waxtaan bi ci guddi gi. warkalla muy noonu champion CEDEAO champion d'Afrique champion du Sénégal tombeur de Alioune Seye Junior wallaay ku mu seexal tax tombeur de Boy Niang 2 wallaay tombeur de Boy Diouf moo daan Obama moo daan Sanguma moo daan Bazouka bu Ngoy daan Fall Yara daan Junior moo daan Brise de Mer moo Bébé Saloum moo Jordan moo Elton moo daan bride kooku hmm. moo jóge caare <laughs> moo jóge caare yi waa ko papa kan waaw Reug Reug mu ngi noonu yëg na def yëfu mbër guy gi mën nga yegg si ceer guy gi mu ngi ñëw mu ngi noonu ngeen seen muy ñëw ànd ak waa këram moom itam kooku mooy l'enfant de Thiénaba l'enfant te géejawaay mooy dugg si noonu. surtout Mari ki nga xam ne bu nekkul woon mbër tey siñaadaam ak kurusam lay yor ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi wër ko mu nekk champion bu mag daan njaaxum. ak daan Robert Junior. ak Top Copet. ak daan jaagar jaagar. daan njagandooy ak Zarko ak euh, bébé Saloum ci teg daan Amaneex daan Bazouka daan ki nga xam ne mooy Ama Baldé kooku mu ngi noonu daan nees ak zos ak zos ak sukka ak sukka ah tubarkalla allahu akbar tubarkalla léegi nag yooyu mënul ñàkk ci làmb ndax loolu ak suñu cosaan ñu ànd gis Sénégal ak téeméer indi mbër yi duggandoo daanaka à l'intervalle de deux minutes tubarkàlla lépp jaar ci yoon ci nekk tax sa place def seen i débat yëpp Malick waaw ndax lii ak làmb noo ànd xam nga euh, guy gi ku ko xam-xam ne champion la bu yàgg wër mbapat yi mhm. fu ne yanu na saagam dem fa ànd ak ñi nga xam ne ñoo ko wër tey soppiwul àndandoo ba léegi. soppiwul àndandoo ñamu daan àndal démb ak bërki démb. ñoo koy gunge ba léegi ah. ñi nga xam ne ñoom la wóolu. ñoo di fanaanook ñoom. di naanandoog ñoom ataaya ñooñu la àndal. waaye rëg-rëg xale yi ko wër nii. ñoom fu ne dem na fa ñoom. fu ne ànd na ñoom moo xam ci dëkku séeréer yi la moo xam ci biir ndakaaru la fépp fu mbapat am xale yii la musa wóolu. xale yi ñoo ko mus di nge xale yi ñoo ko mus di demal fañ koy dem lu ñu koy sotti ñoom ñoo ko koy sotti. loolu mooy mooy kóolute loolu mooy kóllëre ndax itam ay nit bu ngeen ànd ci fukki dërëm ba ay million koy doyloo da nga koy doyloo. ki la jëlee fukki dërëm ba jëlee million. koy doyloo bu yéene la dara lu ñaaw. loolu la Omar kan wane waaye gis nga tam guy gi lan ko xamee mooy bu duggee dafay jat fa mu toog ma ngay jat di buruus xam nga loolu cosaan la. looloo lay won dayoo combat bi. Hmm. ndax ñoom ñaar fonk nañu bés bi fonk gu nga xam ne kenn bëggul la sàggan ba sa morom yoxoosu la kenn bëggul la sàggan ba sa moroom jekku la ndax làmb du bésu làmb ba rek bu ñu leen nomee ñoom ñaar kenn ku ci nekk la nga yaakaar ak ka nga yaakaar ca ngay dem mhm. fa nga yaakaar fa ngay dem lañ la def loo loolu ngay def parce que yaakaar nga ne lu détail boo ci bàyyi ndam li rëcc la alaaji tabarkalla ñaari mbër yi pare nu foog naa ni. Euh, Pàcceer ñaari mbër yi. waaw. ñu yaru. Hmm. ñu dul yàq bis. yaru ci biti géew. ñu mën a yemale ñi ñu àndal. Hmm. kenn du ci dépassé. ñu am kóllëre. ñu am ngor ñoom ñaar ñëpp. ku ci ne ménager bi toog ménager na leen. Hmm. Paala Diop bële moo yoroon guy gi. moo yoroon guy gi. tàggoo bu rafet tàggoowuñu. ñu mhm. mu rafet mhm. mu ñëw yor Omar kan mu rafet guy gi taxaw seede paala lu rafet kon waaw ngor boo koy seet am na ñu xam ne du ñu fàtte démb te moom bokk ñi ñuy fàtte démb Omar kan it mi ngi nii gis ngeen ko rek rek ñu mu daan àndal la àndal guy gi ñu mu daan àndal la àndal xam naa ne la fête sera plus que belle ndeysaan tubarkaal jërë ngeen jëf ku nekk ngay buusu <laughs> ku nekk ngay buusu léegi nag mën ngeen mën ngeen a wàcc <laughs> waaw léegi mën ngeen a wàcc. ndeysaan mën ngeen a wàcc nag léegi ci parkala may nu nag waaw. Euh, Thérèse daa joom mi. waaw yii nag xam naa ni. <laughs> daa joom mi madame Sarr ak ak Dieng ñoom mi miinu yi suñu milieu mi ngi nii de. waaw ñun yii suñu yëpp dara commencé gul lii lancement la rek film bi ñëwagul. di ña ngay buusu. ña ngay diw. laa <laughs> ilaaha illallah ñu sol jasneer yu seer diw. c'est que ñii dañ ko waroon euh, jàppale tey si match Cap Sénégal bi. <laughs> ay waay xam nga xam nga tey moom fee fee la faroon quoi. di di ndokkeel tam. Cap Verde Cabo Verde non benn lañu la ñaari peuple benn ah. lañu. dama ni ñu ciy profité rek félicité moom fi la bokk félicité les lions du Sénégal. ay maamam a ngi belleer. Euh, ay maamam yëpp a nga belleer. moom kii fii la bokk. waaw euh, Malick. fee it bokk na fa. waaw yow yamoo fi du génn nga réew mi dem. waaw moo tax moom. nii ah, la rek moom moom xam nga lii moo lay won ne. Sénégal ak dëkk yi ko wër wala réew yi ko wër benn lañu. lañu je pense que boo demee au au Cap-Vert tu trouveras des Sénégalais. Mhm. boo ñëwee fii tu trouveras Louvra des Cap-Verdiens bien sénégalisé te dafi le symbole madame Sarr mi moo symbolisé loolu ñoo daje ñun gañe nañu leen jërëjëf mais loolu taxul ñu démérité ñuy félicité les lions du Sénégal ci ndam li ñu am di leen ñaanal ah ñu continuer noonu di am ay ndam di am ay ndam ba indil ñu coupe bi yàlla mën na ko te Sénégal yaakaar naa ni bu ñu bokkee ndey bokk baay xàccendoo dóorandoo ku nekk ñaanal équipe bi yàlla mën na nañu defal jàmm. tubarkàlla foog naa ni ñaari mbër yi toog nañu euh, madame Sarr euh, yow mu yore marketing war a siiwal war a def événementiel mu fuur noo gisee dugg si ñaari xale yi. ah spectaculaire. man de damaa toog rek di seetaan nekk te Malick Thiandou ma ngi may bàyyi xel bu baax <laughs> c'est spectaculaire lii daal dafa doon euh, suñu aada yaa ngeen di wax sànq ba tey man ah. waa Sénégal la macha allah ah, waaw waaw pire man Saloum Saloum pire la man waa Sénégal la ah, léegi nag j'ai le sang capverdien mais mon cœur est oh, oh, donc oh. lii moom c'est euh, culture Sénégal dafa rafet nit moom boo bàyyee sa culture rek da ngay ñaax François ñoo ngi fii ci Bel-Air euh, lii neex naa jaay Euh, absolument maanaam c'est-à-dire xam nga la culture sénégalaise elle est vaste mais xam nga lamb ni mu koy mm-hmm. symboliser te gis nañ ko vraiment ci événement yi nga xamante ne mooy am Sénégal bu lamb amee ni muy mel ni engouement bi ci population yi di am ak yooyu facilement aussi les partenaires se voient là-dessus euh, à travers leur, leur, leur, leur communication donc euh, je pense que euh, ce sera bien ce sera la fête sera belle quoi xam naa ni amateurs yi yàkkamte nañu dégg ñaari mbëri dañu leen di bàyyi ñu nuyoo bu ñu nuyoo nag ñu soog a nag dugg. dëgg dëgg ci biir ñi ñoom moom bis bi waxal ak ñoom. waaw tubarkalla foog naa ne. newoon naa la bu ñu uh, xësee dugg si. waaw man ak yow ak ñi fi toog. pare nañ wax jeex na. waaw mu ngi noonu ñu ñu bàyyi kàddu gi uh, Umar Kane rëg-rëg mu nuyoo waa Sénégal nuyoo ak ay supporteurs am nuyoo ak ay mbokkam nuyoo ak ñi ko ñi ko àndal. Mhm. Umar rëg-rëg. allo allo ndax pare na. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku si nekk sa tur sa sant. Mhm. di nuyu guy gi di nuyu Sénégal yëpp yàlla na fi jàmm yàgg loolu te wér di félicité sunu lions yi di leen wax na nañ gën a góorlu so instant bi soxla nañ coupe du coupe d'Afrique bi waaw ñu ngi leen ñu ngi ñaan yàlla suñu borom jàppale si ban jël ko si kàttanu suñu borom. di nuyu waa Thiaré Géej fukki penc ñaar yëpp maa leen di nuyu di nuyu waa ñoo Jonwaar Ñoojoor Falioso Basaar Basul Ngajoor surtout waa Caalaan aw ma seen fay ak waa Basaar ak waa Basul ah. maa ngi oo tund il yëpp maa ngi leen oo waa mar fa mar mar mar waa Diofior Fimela waa Mbeelangij waa Gandiaay waa Kaolack maa ngi o ñoo ñëpp di wax na seen doom am na combat nañ ñëw comme nu ñu doon def rek incha allah ñu def na di nuyu sama manager Pala Diop di nuyu sama papa di nuy Leyti di nuyu sama boy mandal ku si mel ni Cheikh Birane Modou Sène ñoom Vedasia ñoom Aro ñoom Cheikh ah maa ngi nuyu ñëpp ma limee daal damay juum. tarkal jërëjëf guy gi ñu bàyyi la nga nuyoog waa Sénégal. waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. ginnaaw ban sant yàlla julli ci sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu sama sëriñ sëñ Asek borom ndigal di ñaan Sénégal yàlla dafa jàmm yàgg ak wér. di nuyu waa ba Seck bu baax di nuyu suma papa ak suma yaay suma grand frère Modou Babacar suma rek suma famille yëpp. di ñaanal sama xarit bi général Baas yàlla yàlla olofal yan bi. di nuyu bépp kilifa diin ak kilifa aada. nuyu sama yaay Wara saar comme d'habitude suma xarit suma président suma sénateur suma député suma ministre. sama yaay Wara saar di ko ñaanal yàlla yàlla na jàmm ji yàgg. sama grand frère Nas. di nuyu Ndeye caam Mame mbay pari Adama Yaare. ma kenn nga xam ne yaa ngi yeewoo kër Wara Sarr. di nuyu suma turando Sayar bu ndaw. di nuyu ñi nga xam ne vraiment ñoo nekk suma koñ. ku ñu mel xam nga ñoom Fagnas der ñi nga xam ni vraiment damay dama leen déranger chaque jour mais jàppuñu ma sax comme mbër sama booy ma àndal ñoom Bolo euh, Baro Malal su ma limee damay jum quoi Pam Ndoy mm-hmm. Petit di nuyu sama ménager euh, euh, Père Djili suma xarit suma waay di nuyu tamit suñu président écurie mbër bu yàqu paare di nuy nga xam ne suma adversaire Omar Kane rëg-rëg di ko ñaanal yàlla yàlla may ko jàmm ba làmb ja di nuyu ñi mu àndal ku mel sama père Palla père Palla père père da nga <laughs> ak xam nga père Leyti ñoom yëpp ñi xam ne ñeem ñi ànd rek nuyu naa ñëpp ah Omar Wade jërëjëf kenn di nuyu tamit xam nga euh, di di leen sax ñaanal laax di nuyu gaynde yi vraiment soxla nañu soxla nañ modification modification quoi. motivation modification ñu modifié leen. motivation waaw motivation. ñu modifié leen nekk seen ginnaaw ñaanal yàlla parce que comme ni ko Omar Kane waxee soxla nañu coupe bi trop. vraiment depuis bi ko Omar Kane waxee équipe nationale gagné lu na nangam nangam yàgg ay keer yooyu dañ ko doon dégg rek kon defe naa ne sénégalais yi. ñëpp war nañoo jël seen kurus ñu jël kurus jël kurus ñuy ñaan ñaan ñi mën a def leneen pour coupe bi mën a ñëw ñu nekk ci beneen level. di féliciter tamit sama benn frère boo xam ne tamit vraiment def na barki démb MMA euh, fële moo géej. kooku dañ ko war a jàppale ñaanal ko parce que loolu rek am na lu muy servi ci sénégalais yi. mënoon na koo def defal ko américains yi mais da koo def ngir sénégalais amul waykat yeeg yëpp sénégalais la. 100 pour cent man loolu. loolu dafa ma motivé du caaxaan de man ak moom amuñu sax lien boobu noonu comme li ñuy déggante bëriwul mais lim def dafa ma sogee dafa man. xam nga marqué na la ñëpp ñoo ko war a ñaanal. muy moo géej. ñaanal tamit xam nga su ma yaay waree saar lu mu mën ren rek déwén mu mën lu ko ëpp di nuyu suma grand frère Malick Gakou di nuyu suma suma nouveau nouveau maire suma nouveau maire Ahmed parce que man ba ma daree bëri mbapat ba nii amul maire bu nekk yaay jàppale ma tey laa koy doog a wax mhm. ku ko wax rek na woote fii rajo maire bi ma dëkkal ñoo dend xamul sama buntu kër kon defe naa ni tey su ma amee nouveau maire boo xam ne amoon nañu relation yu particulière mu nekk maire sa fële bu ma toogee ma ñaanal ko yàlla yan bi oyof liggéey xaar ci moom mu am ko man amoo politicien war saa rek la am politicien. jaajëf. yeah jërëjëf guy gi. Euh, jërëjëf guy gi xam naa ni euh, dañuy daal di ñëw ak yéen léegi ci portrait ñaari mbër yi daal di ciy jaaree itam tàggoo ak suñu ñaari gan yi nag ñu dem ci liggéey ba ndax waar wi leen xaar yaatu na madame Sarr ak monsieur Dieng lu ngeen ñu tàggoo Sénégal. Euh, di jox rendez-vous Sénégal euh, le 20 février mais bien avant 20 février bi ndax ñu mën a dund tous les événements forts bi accompagner affiche bi mhm. et di ko bamtuwaat direction générale bu groupe Futur Média dafa jënd droit ndax ko jagleel euh, public e et comme l'a dit Ibrahima Dieng lu ñu doon tey ak fépp fu ñu ti jëm suñu public bu newul suñu wet duñ ci duñ ci àgg donc ñu ngi leen di delloo njukkal à travers ce drapeau la drapeau GFM la mais drapeau wu ñëpp ñu bëgg GFM la donc drapeau wu Sénégal la jërëjëf